barki yenente bi chaque jour saa may matinaalu ñooy ñooy ànd wala ñooy daje entraînement des fois damay dugg ñu génn wala man may génn ñoom ñuy dugg kon ay jàmbaar lañ boo gisee ma ñëw zungale suñu doomu day mu ci kaw léegi la may woo foo toll ma ne ko embouteillage bi ma ko téye pour man sax balaa ma yegg si damay fekk combat bi jeex mais comme que fekkee ko maa ngi ciy sant yàlla di ko félicité di ko ni liggéey rek am solo ndax lamb ji yëpp dafa jëloon woo pour ñu contact mais fekk moment boobu dama xawoon xat mais teewul moom mu ngi woon ci boppam. jërëjëf da ngaa bëri fii arène nationale finaalu sa diggante ak Serigne Ndiaye nga ñàkk ko bi nga ko ko ñàkkee gis naa ñu jàpp wolo nga mel ni kuy jooy ak ni nga mele ni nga nekkee sport dimanche bi nga demaat amaat Serigne Ndiaye de daan ko moment bi ko daanee fii est-ce bi nga demee fee am ko gëmoon nga ne mën nga koo daan waaw gëm moo tax ma dem ndax xamoon naa ni mbër moom saa boo amee ndam rek sa day nekk si dem kii sóoraale mooy ki ñàkk ndax boo daanoo yaa ngi xalaat est-ce que su ma demandé dinaa daanu est-ce que bagage bi moo baaxul yow boo daanoo sa xel day nekk si defaraat mais ki daan saa su ne moo lay ëpp chance pour compétir ba na ba ma am na ñoo xam ne ni dimanche bi damay compétir gëmuñu ma dañ naan ma est-ce toog ma leen non non bi instant yi tëj na ba pare booy xool benn boobu moo benn journée boobu moo fi desoon kon bàyyi leen rek yàlla dogal na ñu ñëw fa compétir waat fa yàlla dogal mu am ci man ndam samedi ma xam li tax moom mu am ci man ndam ndax liir naa ko xam naa li tax mu am ci man ndam ba ma ñëwaatee damay rëcc fee suma bopp rek. léegi bi ngeen demee dimanche ngeen bëre yéen daal jékki-jékki naa gis rek ci biir wuure bi. nga bëtt ko. waaw war ba Serigne Ndiaye mais bi nga waree ndomba def nga effort boo mën ko bañ a waaw c'est normal. dafa am loo xam ne penalty bu ci mbër tollee boo ko boo ko ñàkkee rek yow loolu pour nga amaat ko du yomb te te mbër bu tollee foofu noonu am action yooyu sa baxan nga ciy teg te ku ne xam na ni Serigne Ndiaye champion la chaque jour nga gis fii ci làmb mbër wër ko nomba mu tourné jug tourné ci kon loolu fooram la moo tax may ma ko mu jug ndax mu sikki woon rek xam naa ne day tourné comme que le fait que ñu ngi ci suuf ma profité jéem a jeexal lamb ci quoi vraiment moom it di profité ci occasion bi di ko encouragé di ko félicité ndax jàmbaar la gaynde la champion la. nga daan ko. day mais li nga njëkk a def automatiquement mooy kott ko di waxtaan ak moom. non mooy dëgg lan lan moo leen dugal ci non Serigne Ndiaye dañoo bokk luñ mënut a ndax bu dul dara ñun ñoo bokk métier bi. te musul musul wax ci ñun lu ñaaw wala mu def ci ñu ñaaw kon tey ñun tamit musuñoo wax ci moom lu ñaaw wala ñu def ci moom lu ñaaw te ay adversaire warul mën a jur ay ennemi ay adversaire lañ buñ dajee day metti mais bu jeexee nañ ko teg ci cadre sport te Serigne Ndiaye génnee ci làmb ci ku ko gën a doon sportif mu daan la ak nga daan ko ak lu mënti xew seen làmb dina ñëw ba ci yow wax ak yow encouragé la xamal leen ni lii la. kon moom bu ma ko defee mat mu daan ma ñëw wax ak man kon man tey jii jaar na su ma ko daanee man tamit ma ñëw wax ak moom. yee. mën a door bi foo ci yéen xam ngeen ne man. su mu may contacter bu baax. barke alxuraanul karim su ma sañoon tii balaa ma fiy jógee dama yóbbaale avance. xam ngeen ne man nitu bëre dóor laa yéen xam ngeen loolu simple bi dama cee wàlli mais man bëre dóor laa njëkk def te bëre la ma ñu bëri xamee xëy na nag après dem na ba combat yi dëgër ma dugg ci bëre simple mais ñi fiy bëree fii nii nii nii nii xam nañ ni général bu ñëwee fii stade bi da koy musu. ñan la ñan ñan ñooy fi bëri fii mooy loolu noonu. bëri na fi ñoom ñoom ñoom doomu daang yi fi nekk di xaar ñu dañ ñëw ñu bëree Garga 2 suma adversaire la. xam nga tey ji ñàkkul ni su ma ko tuddee mën a yaakaar ni moo ma raw wala moom ma ëpp niveau affaire yooyu te ñun ñëpp ay sportif lañ ay adversaire de lañ ñoo yem génération deful ci lu ma defagul fii tant que egg goo au dem doon roi des arènes jàppal yaa ngi ci cour bi te ñun ñëpp ay morom lañ kon ñun ñoo war a bëre suñu biir képp ku ma làmb booleel pare naa pour bëre ak yow mais samay adversaire xam nañ seen bopp nañ ñëw ñu bëre pourtant da ngaa bëre Serigne euh, fils de mu daan la mu bëre góor a soog démb daan Gora Sock sa diggante Gora Sock neex na wala. waaw ku mu mënti doon rek man pare naa. Fils de Balla moo leen boole. non du question de Fils de Balla moo ñu boole soo xoolee ñaari manière ñaari ñaari combat yi sax bokkul ba muy bëreeg moom liñ bëre bokkul ba muy bëreeg Gora Sock bokkul adversaire bu nekk am na nu mu moom. am na ci ñun ndam dañ ko koy santee dañ ko koy ñaanal mu jikkoo mais li ci général du ci keneen comprendre nga man mbër laa ak lu mun di xew man mbër laa. man boo may boo may daan da ngay xam ni mbër mi erreur la def rek nga daan ko mais buñ suulee tànk bi mbër mi ñëw carrément no balaa nga daan di nga wax lu leer. jaajëf maa ngi lay jaajëf jaajëf maa ngi lay bëggee bëggee jili di bëggee tamit sama gars yëpp tey dafa am suma ñaari booy yi anniversaire Dial ak Cheikh maa ngi leen di souhaiter joyeux anniversaire ndax sumay xarit lañ dañuy jàpp samay combat dañuy sonn ci man maa ngi leen di souhaiter ak képp ku may jàppale maa ngi lay sant man Dunya ak géeju Malika moom boo bëggee boo bëggee gis chaque weekend ñu ngi ci géej gi di contact ñun chaque chaque chaque été suñu tëbës dañuy bëree ban vacance yii xam nga li may wax laaj ko moom dañu fay fekk dimanche dimanche yi lamb yi xawee aju rek ñu ngi woon géej di contact waaw ah, ba léegi waaye sant tolaguñ ci noos dañ ko bàyyi ak ñoom Balla Gaye ak gars yi ñoo ñoo toll ci noos Okay.